te dañuy liggéey waaye ñi nekk ci ginnaaw ñan ñooy jaay ay armes état Sénégal benn jet privé rek benn jet bu soldat ñaata milliards la ku koy jaay du benn sénégalais dàll yi soldat yi di sol ku koy jaay bali fetal ku koy jaay lacrymogène yi kan moo gañ a bi tali yi ngeen di gis ku ko gañe yeneen projet yi am Sénégal pour cinquante ans ñan la waa nan la ñuy mën a nangoo toog nii étranger ñëw di lekk loo xam ne suñu avenir la ñu ne patt noppi mais benn sénégalais bu naan nga ne ma ne bu lekkee trois milliards ñu taf ko fépp ñàkk xam-xam laa ci gis bañ sa bopp ak iñaan waaye juróomi nit ñu juba di ñëw sàcc ma kii kër jàmbur la jógee ñëw sàcc ma kii dëkk jàmbur la jógee ñëw sàcc ma kii ci kër gi la bokk ñi dëkk kër jàmbur ak dëkki jàmbur laay njëkkat rek la liñ sàccee ba pare ma door a wax ak ki nekk ci kër gi ndax ci kër gi lay des waa Doro Gueye bu sàccee 3 milliards fu muy jënd kër Sénégal Aziz Ndiaye bu sàccee 3 milliards fu muy jënd kër Sénégal Zakwi Laay bu sàccee 3 milliards fu muy jënd kër Sénégal Iliman Lam bu sàccee 3 milliards fu muy jënd kër Sénégal kan lay jox de dépasse sénégalais fan lay def alalam gàmmu màggal ziyaare dëj ngénte yëpp ci ñun la jëmaat waa sàcc buy sàcc sa alal di la ko delloo moo ma gënal kuy sàcc ti bu yóbbu ba tey légalisé wu sàcc bi ya baax ak bële déedéet ñaar yëpp a bon waaye ci biir ñaar yi bon nag dafa am bi gën ñaari bàkkaaram bu oyof ak bu rëy bokkale yàlla yàlla du ko jéggale mais fàtte julleeg yooyu yàlla dala koy baal <laughs> jigéen ju fiir yàlla da koy baal te bàkkaar bàkkaar la mer saaga ndey yàlla dalay baal foofu lay waxee léegi nag dooro gi problème am yëpp problème mu Doro Gueye yëpp Clara la li ma wax lu garaaw la waaye nag lan moo tax ma wax Clara la ak wax ci fan laa ko teg soo ma dégloo nga koy dégg Doro ak Clara dañu yàgg am seen ups and comme couple yëpp Doro Gueye takk Racky bi muy takk Racky ñi demoon amul kenn ku ci Doro bokkal mais séq nañu ay taranga mu tag ko ci farata ak sunna moom Clara bi mu jotee rumeur bi mu yëkkati téléphone woo rakki ci boppam di ko laaj mais xam nga rakki bandi la lu ko Clara laaj rek mu ne ko du man nga war a laaj laajal sa jëkkër bi rakki deme bi Clara deme ba xam ne rakki mii jabar la fiiraange jigéen dugg ko ñu am ay problème ñoom ñaar problème mu jëkkër ak jabar am na benn bis Doro Gueye dafa bëggoon a dem Kaolack waroon a ànd ak rakki keroog Clara dafa xeex ak Doro ba xotti yéreem bi ci biir néeg bi ñu toog dooro mu jul dem Clara xaar ko ba sonn ay eh, rakki xaar ko ba sonn ñëwul mu fomm coowi gendarmerie bi biñ nekkee ci gendarmerie bi nit ñi xam ñoo wax rakki na ko sa jëkkër jàpp neen ko fii mu ñëw taal otoom ñëw coow li doonuloon Clara ak Racky xeex amu fa magu Clara pànk bi nga xam ne mooy defante ci famille moo fekk Racky ci otoom bi ne ko yow lan nga fiy def xas ko tuumaal ko gaaf na ko jigoo ko dañ ko dafa dugg ci yow dañu japp ko wax ko ay bal ciow loolu mo fa am ba tay rek ay dara waccul auto mu dem biñu jappé doro doro am fu mu ak ñu mu yonni ndessa wali balago sek ci tabaski gi yóbbul na xar dooro ci kaso gi biñ ko jàppee waale génnee na xam nga soo gisee man ma wuteeg booy nekk ci tiktok bi man dama xam ni may communiquer tey su ma waxee waale ñaata som la jox dooro dañ koy dagg tiitire ko waale a donné tant de million duma may loolu site mais ñaari tranche la waale sekk yóbbul xaalis dooro pour ñu bàyyi ko waale participer lu am solo et bu ma tuddee million yi rek yàq wax ji mais xam naa lim yóbbu te ñaari yoon la ko yóbbu dafa daw génn dem régler régler am lu mu am indi demal demaat régler régler am lu mu am indi pour bu door jàll ci kaso bi Momo Dieng jamono boobu moom mu naan saf na ba noppi sàppali seetiwul dooro yóbbu ko xoolu ko tabaski sa moom gambi la dem wali sekk bala moo lekk xaram bi dooro la yóbbul xar ci kaso bi moom ngi taxawalu rek dégg naa ñu ne dafa sida daf ko wàll ay jigéen mais góomalul dama ko dégg kon gis ngeen wali ngor gi mu am ak gore gi gis ngeen moom moo jaam gi mu doon ak gore gi ci dooro gi waali daw demaat indiwaat nangam ci ay millions teg ko boole kook jooy nag ëlbatiku woo benn waayam na ko man xawma sëriñ su ma baay moo ma doon ñaanal ak suma yaay omaro mii ngeen di gis dem wuti ay ñaankat waali moo leen fay pour ñu ñaanal dooro mu génn Wally Seck mu ne moom xamul sëriñ mënut dem fenn ginnaaw Abdourahmane Fall Tilala ndeyam ak baayam képp la di lijjanti di wut Omaro tam dugg ci àll bi ñuy uti ay ñaankat ngir ñu ñaanal ko mu génn parce que mënuñ ci dara Wally Seck yemut ci mu ngi yéeg di wàcc Jaamaan Express jabaram day togal Doro Gueye mu gàddu ko ci dem yóbbu ko biñ ko jàppee police ba kaso bët bu yàlla moom jaman mo dem ci Kadijatu Njaay waxtaan ak moom pour mu wax ma man ma bàyyi li wax ci Doro Gueye soxu bébé mom xamut bopam nga xam ne toppandoor woyu jàmbur rek la mën ah kuyaate fi la ñew woy mu woy xam ngeen soxu lu mu wax dafa wo ben frère Doro gi ne ko xam nga rek ñun artiste leen ñoo feñ patati patata ñing koy ñaanal mais soxu lan nga tekki ci musique sénégalaise lan nga tekki te yow so mënon na jot ci Marème ak yooyu su passé Serigne Fallou transitaire doro mo lay dimbale ñaata yon nga xulo pour xaliss bu mu lay jox mo la don géré yow tekki wo dara ci musique ndor wéyu jamm rek nga mën ah nga ñew ñu japp doora nga ne mëno feñ parce que li nga tollu ci dëkk bi yow lan nga tekki ci dëkk bi lu lu lu doora tekkiwul dafa am wax yo xamné nit ku baax sa moko warta wax tejil sa gemmi gi nga tok nga ben droit ah, ah, ci xamadi yoy moy lan shut yow sa rêve melni walisek. ni sa rêve moy melni ni ñaar ñooñu dañuy joy di ñaan di ñaandu di wuti pexé pour doora a génn yow mom ngay vocal nan ay mëno dem fi mëno dem fele parce que ni nga tollu ci mi lan nga tollu ci réew mi no no day motax xam nga ay ñom marem Faye la makila ak Amadou Ba dina xam kan ngay wéy léegi xamu len sen bop soof yow nit ko la doon jàppale nek ci wah lubah yow genno wax lu bax ñaan nga toog naan niñ toll ci réew mi mais on est tout cœur avec lui on est tout cœur duul on est la àndoon ak yow on est tout cœur avec poche la àndoon ak yow au moins nga togg benn lekk yóbbu soxlawu ko mais teraanga sa kër seeti mbokk mi solidarité seeti ko mu gis la man ba ma amee problème maam Ali xalifa amadu senegal Buzz Sen bës dañoo ñëw seet si ma seet ma ci kaso gi loolooy ànd léegi bi loolu xewee